mais Yérim aussi. mais mosuma wax lii. waaw mais mais reconnaître que mosuma wax lii. ce que j'ai toujours cru. c'est oui. que le problème d'Ousmane Sonko il faut le régler définitivement. Oui. parce que depuis deux ans ça empoisonne la vie de tout le monde. Oui. ensuite vous dites plus loin l'affaire Ousmane Sonko il faut la régler selon la loi et quand on applique la loi même s'il faut même. même s'il faut bi la ñu fàtte. Ah, même si faut tuer quatre-vingt-dix pour cent non waxul mbir s'il faut de dañ ni man maa ni. waaw non non non waaw loolu laa loolu la ñu dugalul ci seen communiqué non wax ni c'est grave. non Yérim da nga may non non non il faut être sérieux non non non non non non non je vais m'énerver je vais m'énerver non tu n'as pas à t'énerver dama ne je ne suis pas de mauvaise foi dama la ne soit de bonne foi ma ne dama la ne je ne suis pas de mauvaise foi yow xam nga ne lii li ñu wax bokkul ak li ma wax ah, mais déglu ma waaw mais arrête de raconter n'importe quoi mais dis la vérité dama ne mais waxal dëgg ñoom ils n'ont pas mis le même s'il faut waaw mais kon waxal dëgg waaw mais loolu laa waaw mais donc dañu fen non parce que dañ ma wax loolu loo xam ne waxuma ko parce que dañ ne man maa ni respecter ce tribunal là c'est notre instance. waaw Yérim non non Yérim. ce tribunal la waruñu ma respecter. non dañ la war a respecter. mais pourquoi ñu may fenal mën mais dañu ma fenal Yérim c'est une instance ñun ñoo ko jox suñu bopp. waaw ñun dañoo war a respecter ce tribunal là aussi mais de mauvaise foi. non wax dañuy fen. d'abord ce tribunal ne me respecte pas. non defal nag d'abord ce tribunal ne me respecte pas. xam nga lu tax déglu ma. c'est vrai que y a une modification de vos propos. c'est faux je léegi pareel ma léegi may ma ma wax nag. juumte la may ma ma wax. parce que mënoo ma interroger ba pare di wax. parce que Maïmouna soo continuer je vais m'énerver. non mais parce que tu es de mauvaise foi. tu es de très mauvaise foi. xam nga ni yow xam nga ni ñii ils ont travesti mes propos. tu le sais. mais comme xam nga ni li wax ni ko. mais je on oh, c'est des c'est des pairs. mais je l'ai dit xam nga xam nga lan moo war a am courtoisie respect mutuel xam nga lan moo respect mutuel. Cheikh Yérim Seck lan ni moo wax lii ñoom ñëpp am nañ sama téléphone. c'est très simple avant ngay def communiqué danga may woo Cheikh Yérim nee na yaa wax lii ma ni la man lii laa wax lii laa wax lii laa wax mais woowoo ma respecté woo ma. xëy suba mais ñii nii bi Ousmane Sonko nii Adji Sarr dongo gaa daan daangin la go AVC fan lañ nekkoon. bi Ousmane Sonko ni day day daggate Sall comme sa day reye Macky Sall comme Samuel Doe maanaam rey ko daggate ko fan lañ nekkoon bu gars yi toogee chaque jour ci média yi di saaga chef religieux yi ci réew mi fan lañ nekkoon mais ñuy xoromu nañ ah. <laughs> non mais Sénégal <laughs> non vraiment Sénégal gars yi dañoo saf xorom bref ñii correct respecté wuñ ma dañ ma fenal parce que dañ ma wax loo xam ni waxuma ko. non non c'est dañ ma fenal parce que liñ ma wax waxuma ko. dañoo déformer samay propos. dañoo défor ba pare respecté wuñu ma. yërëm ba pare eh, xam nga nit ki aussi boo nekkee ak moom da koy respecté man fan na nit mën a taxawee xalaat ni man dinaa dof wala jine jàpp ma ba paan tongal ma ba ma xëy suba nañ day quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais. loolu ban logique la c'est-à-dire comme ni nit ñi di wax rek c'est-à-dire même bu fekkee ni wax kii kii wax dof la mais nopp yi koy nekk war na nokk ay nopp nit. quand même man dinaa taxaw naan nañ rey quatre-vingt-dix pour cent mais phrase boo gis boo ko jëlee ci contexte am boo gis wax boo gis dafa am fu mu nekk maanaam dafa am ci ci ci biir wax yu mu nekk boo ko génnee ci biir wax yooyu mën nga koo wax la lu ne mais wax boo gis pour nga mën a xam wax bi lan la danga koy dugal ci biir wax yi mu nekk. Yérim nga li ma la bëgg a wax. Yérim loolu moo fi ne. il y a eu passé sous silence par le CORED dama la koy concéder beaucoup de dérapage le CORED mënoon nañu def beneen démarche woola la parce que euh, pour pour tribunal la boo xam ne du tiiñal mhm. journalistes yi du teg leen ci penc bi moo leen tax a jóg dañuy rappeler à l'ordre je le concède mais le CORED aussi est dans son rôle. de CORED lañ def mais lu tax CORED. dans son rôle mais CORED li ñu mën a wax bari na de. ah waaw je suis d' ñu mën a wax et lu tax waxuñu lépp. waaw waaw ah. je suis mais le CORED est ah. dans son rôle. et dama yaakaar ne bu ñu bëggee bu ñu bëggee ñun tamit ñu ñu ñu respecter suñuy instance non yow respecté yow may mun a yow sax respecté wu ma. xam tax respecté wu ma mënoo ma invité sa émission. respecte moi un peu Maimouna non Yérim ne non non non non attends non non respecté wu ma xam nga tax ma la respecté wu ma. ne dis pas ça. parce que yow non non attends j'aime pas ça li ngay def nii bëgguma ko. li may def xam nga lu tax li ngay def nii mooy affaire Sénégal yi. affaire Sénégal da ngay wax dëgg. dëgg yàlla dëgg laay wax dëgg yàlla nee na. mais correct suñu instance la non defal ndànk defal ndànk am nañu droit interpellé non non may mu ne li ngay wax nii du dëgg. lu tax xam nga du dëgg. lu tax yow wóor nañu la. waaw correct li ñu wax seen communiqué man maa ko wax wóor nañu la waxuma ko mais mais reconnaître loolu ni waxuma loolu. mais yéen lu tax mënu ko reconnaître. mais ñaata yoon nga bëgg ma wax la ne. reconnaître daal que ni li wax waxuma ko. ñaata yoon nga bëgg ma wax la ne. ils n'ont pas transcrit tes propos tel quel. waaw léegi à partir de là. waaw à partir de là lii lépp ban sens la amati bu fekkee ne dañu dem ñoom instance boo xam ni am nañ possibilité wax ak man ñu jàpp ni ci peut-être ci ñoom laa bokk ci ñoom laa bokkoon sax peut parce que man xam naa ne c'est depuis très longtemps. bind livre peut-être tu comprends mais xam nga ni journalisme actif man defatuma ko dinaa ñëw nii de temps en temps wax bu fekkee réew mi dafa toll fenn fi c'est tout mais journalisme actif man ça fait très longtemps defatuma ko xam nga loolu j'écris des livres certes bu réew mi tollee fenn dinaa analyser tu comprends journalisme bi boo ko doon def mooy bi may bind Dakar Actu benn moment bi may bind Yerim Post jeex na kañ nga ma gëj a gis ma bëgg gëj a bind tu comprends donc je suis plus ci domaine écriture fi mu toll di bind ay livres rek des fois bu réew mi dara xewee ma ñëw joxe sama avis. mais tant que yaa ngi considéré comme un journaliste dafa nekk dafa nekk dafa nekkaguma nekkatuma ci journalisme yow xam nga ci dara. bref le minimum yow boo war a reconnaître may mun a parce que dans la vie xam nga nit boo waxul dëgg na ngay wax fen il faut di la vérité Sénégal nañu bàyyi benn maslaa bi ak benn hypocrisie bi man awma problème ci. su ma defee erreur nga woo ma gis nga gars yi buñ ma woowoon tey ma xool ni ma bind xam ne lii waruma ko bind te ma ci juum je me serais platement